Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Le Garret TV. Alors c'est parti pour l'édition euh, de ce mardi 26 juillet 2022. Alors nous démarrons l'actualité avec cet accident. Euh, donc 30 blessés, voilà, dont 4 graves sur les bilans euh, provisoires de l'accident qui s'est produit tout ce matin entre Pâle et Saint-Louis à hauteur de Gandong. Alors un gangaï immatriculé TH7729E a dérapé avant de se renverser euh, sur la route, selon en tout cas des sources. Euh, comme vous pouvez les voir sur ces images, euh, les gendarmes et les sapeurs-pompiers donc on fait une descente sur le lieu. Et là, on fait savoir également que les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Saint-Louis. Nous parlons présent euh, de l'affaire Mamadou Sek qui a été donc euh, encore euh, bien même qui s'est qui évadé voilà donc qui a été retrouvé par la gendarmerie une troisième personne même a été arrêtée justement à Darou Karim près de Mbaké lors de l'intervention de la gendarmerie qui a mis fin à la cavale justement de Pape Mamadou Sek il s'agit bien de son hébergeur alors ce dernier a été placé en garde à vue euh, à la sûreté urbaine en compagnie euh, de Kodou euh, N. Elle, c'est la dame retrouvée dans la chambre de Pape Mamadou Sek. D'après l'observateur, l'aide de, Pape Mamadou Sek est poursuivi aujourd'hui alors pour complicité et recel de malfaiteurs. Nous restons toujours dans l'affaire Pape Mamadou Sek, cette fois-ci avec l'association pour le soutien et la réinsertion euh, des, sociales des détenus, alors la SRED, euh, qui monte au créneau euh, suite au rebondissement dans cette affaire. Pape Mamadou Sek, aujourd'hui membre présumé de la force spéciale. Alors ce dernier était détenu au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Dantique pour des raisons de santé précaire et il s'était évadé dans la nuit donc du 9 au 10 avant d'être repris 15 euh, jours après. Euh, la SRED aujourd'hui a insisté justement euh, sur son état de santé pour demander l'assouplissement des conditions de détention de l'ex-fugitif Pape Mamadou qui je rappelle était annoncé faussement pour mort. Alors la réaction du président justement de la SRED, Ibrahim Assal, que nous allons suivre au téléphone de Lugari TV la SRET euh, a appris avec beaucoup de regrets l'arrestation du fugitif euh, Pape Momo de Sec à Daro Caribe, aux environs de 9h par la gendarmerie. La SRET rappelle que Pape Momo de Sec était un évadé à la date du 9-10 juillet 2022 euh, a été repris et réintégré en détention depuis hier 24 juillet 2022. Vu que son état de santé est fragile, la SRED demande à l'administration pénitentiaire d'assouplir les mesures pour les sanctions pour un évadé repris et réintégré en détention, euh, ce qui est prévu par le décret 2001-362 du 4 mai 2001 relative aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions euh, pénales. Par ailleurs, la euh, dénonce jusqu'à la dernière énergie, l'acte du détenu Pape Mamoudou qui s'est évadé du pavillon spécial et qui a causé beaucoup de tort à ses co-détenus. Parce vous savez que dans un établissement pénitentiaire, lorsqu'un détenu s'évade, les autres vont payer les, conséquences. Mais également, nous lançons un appel euh, solennel aux autorités judiciaires pour une diligence rapide de son dossier en tenant en compte son état de santé fragile, mais en respectant également l'article 11 de la Déclaration universelle des, des droits de l'homme qui parle sur le principe de présomption d'innocence, qui est le premier document juridique euh, des droits de l'homme. Euh, justement, par rapport à son arrestation, la publication de l'image euh, non flûtée de Pape Mamadou Sek, de l'arrestation de l'évadé, donc Pape Mamadou Sek, voilà, euh, par plusieurs médias nationaux, selon dit, elle n'est pas du tout appréciée par le Corée de le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie à travers un communiqué. Alors, retenez bien l'instant cite les médias concernés par le manquement euh, qui viole aujourd'hui l'article 18 euh, du Code de la presse. Euh, donc la publication de cette image de pape Mamadou Sek est une atteinte grave à la dignité du sieur pape Mamadou Sek selon le Corède. À part le présent politique avec ses prochaines législatives, euh, des acteurs culturels, alors mettent sur pied Sénégal son unité et dénoncent la violence électorale dans cette campagne. Alors les leaders de la nouvelle plateforme rappellent aux hommes politiques que les Sénégalais sont en droit euh, d'exiger aujourd'hui une prise en compte de leurs aspirations euh, profondes des lois d'orientation qui favoriseraient l'épanouissement justement de tous. Alors pour que vivement la 14e législature soit à la hauteur de leurs attentes. Alors nous allons suivre justement la réaction du coordonnateur de cette plateforme. Il s'agit de Papso et avec Lugari TV. li et démocratie c'est ci suñu réew bari na démocratie bi nga ni c'est bëgg Sénégal Moi, démocratie bu toog ci bu lalu ci waxtaan bu lalu ci déggoo ak lu wuute mën a bari waaye démocratie boo xam ni ndoorteem ak jeexitalam lépp jàmm la fii ñuy wax ak yéen nii fii ñu jano taskati xibaar yi nii suñu yeneen naataangoo suñu yeneen mbokk sénégalais ñu ngi dox di wër réew mi di daagan baatu askan bi ci li jëm ci élection législative yi waaye ñun ñi nga xam ni comme sénégalais bu nekk si ñun ni mu bëggee jàmm ni ko jàmm soxalee jàmm noonu la ñu ba tax na li ñuy njëkk a def mooy ñaawlu violence bi nga xam ne moom lañu ñu ci campagne bi lu jiitu campagne bi ak bi campagne bi dooree ak léegi violence ci wax yi violence ci jëf yi violence bii nag ñu sañ koo ñaawlu amul benn explication bu mën a joxe bu koy daganal amul benn justification bu ñu fi mën a teg bu war a mën a wax ni liy jaadu na violence ci biir réew mënut a jaadu tey mënut a jaadu ëllëg bu ñu fàttali ni sénégalais yi nag ñooy fal ñooy folli baatu sénégalais yi doy na ci tàggale ñépp ñi nga xam ñi ngi daagan baatu askan wi du violence mooy tax falu du violence mooy tax a folli te leer nañu ni fii ci Sénégal dara lu baax dara lu rafet dara lu jag mënu fee am lu dul mu amee si jàmm Sénégal dëkku jàmm la loolu moo waral sos bi ñuy sos Sénégal suñu yitte Sénégal suñu yitte mu nekk jotaay boo xamante ni day lëkkale sénégalais yi ñu nekk ci biim réew ak ñu nekk bitim réew ñu nekk ci biir réew mi ak lu ñu mënti yëngu moo xam commerçant la moo xam éleveur la moo xam baana baana la moham xam étudiant la moo xam intellectuel la kep kuy sénégalais muy nitu dara Sénégal suñu te day lekkale ñep ngir waxtaanee suñu réew ci tënk ko ci suñu ay valeur Sénégal suñu te aussi dafa nekk jumtu kay bo xamni day fësal day wasaré manam day def promotion wu ci bimu réew la volonté de Yéwi euh, donc de faire voter une loi contre la discrimination de candidature est une forme de euh, promotion de l'impunité euh, si elle en tout cas concerne des postulants euh, comprenant auparavant exclus par la loi entre par la loi. Alors suite à une décision de justice, c'est selon Birahim Sek du forum civil qui a posté donc sur sa page Facebook cette réaction euh, concernant la coalition de Ousmane Sonko et compagnie. À cinq jours seulement euh, de, cette, euh, de, ces élections législatives prévues ce dimanche, alors euh, toujours pas de fichier électoral, ainsi alerte le responsable chargé du suivi des opérations électorales de Yewi Askanui al alors lui qui révèle qu'aujourd'hui le délai légal de ce fichier serait de 15 jours avant même le jour du scrutin. Alors toujours la carte électorale reçue et analysée fait état de beaucoup de variations, euh, selon toujours Adjuma Sou, euh, variations injustifiées euh, comparées à celles ayant servi à l'organisation des élections passées locales et départementales. Aujourd'hui, Adjuma Sou qui invite la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, à prendre justement toutes ses responsabilités devant une telle situation. La politique, euh, toujours, euh, retenez bien, c'est le dernier virage, bien sûr, dans cette campagne électorale, après presque 15 jours de discours euh, de campagne. Alors que retenir des discours des hommes politiques Notre reporter Aïssa Tunay est allé rencontrer quelques citoyens. Nous suivons leur réaction. li ñuy wax mun naa kaa dégg doy nañ ma trop trop waaw non moom man la man moom lu may wax quoi bëriwul quoi ku nekk bu la yàlla wërsëgalee nga yor réew mi quoi na nga def la sa devoir quoi li nga diggee ko def parce que fi gis joob la xam dem liggéeyi teral ay wala boog moo fi am quoi mais gars bu ñëwee fii bëgg jël suñu xaalis lekk ko ak seen dëkk bu ñu daw dem seen yoon baa wala boog nu muy demee. barki yàlla man Sonko moom convaincre na ma moom. Ah, Sonko quoi. waaw mais lu mu wax na ko jëfe quoi loolu la ñu wax na ko jëfe waa ndax loo gis quoi da nga koy jëfe après même kuy sang néew sax dañ koy sang après tamit dañuy wuyu suñu borom lu nga waxoon yëpp day feeñ. waaw mais xam nga tey jii le problème mooy discours yi gars yi def yëpp man am na ci yoo xam ne ànd naa ci mais tamit am na ci yoo xam ne nii ma ci. Euh, parce que dañ ne euh, être fort c' est mieux mais des fois tamit le geste fort c' est décédé parce que euh, li ma gis nii man dëgg la ànduma ak président de la république à 100 pour cent mais ñi ma gis opposant yi ma seen ñuy diirante kii mbagg dàllam sax moo leen dàq yore réew bi waaw ndax tey li ma gis nii daal man xaw ma xaw ma daal mm, demul kër waaw parce que man bu ma sañoon dëgg la ñu xool beneen solution ko waa soit ñu jéem a xool capitaine du Dieye ñu jëm ko ci dugal ndaxte moom daal laa fi gis koo xam ne nii moom mën na convaincre gars yi ci lu ñu lu ñu jëmale kanam daal jamono ji voilà. Nous en arrivons au point Covid de ce mardi 26 juillet 2022. Alors retenez bien sur les 733 tests réalisés, 30 sont venus positifs. 4 euh, cas sont importés de l'AIBD, 43 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés euh, guéris. Alors, aucun cas grave non plus de décès n'ont été signalés ces dernières 24 heures. Retenez bien également qu'aujourd'hui, 285 patients sont actuellement sous traitement. Euh, selon le ministère de la Santé, de l'action sociale qui a fait le point, c'était ce matin. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est tout pour l'actualité sur Lugare TV. Merci à vous tous de nous avoir suivis. A tout de suite, la version feuille. mako ya xarit yi lugare TV bisimila ci xibaar yi fi ci lugare TV xibaar dañ koy doore rek lu jam ci accident bu metti ba amo tay eh, ji ci suba eh, fofé ci douane eh, bu ci digënté pal ak Saint-Louis lu ko dalé ci douane bu Gandong bobé accident nak metti na lool deug la sax am lu ñu ci ñak seen bakkan wante am na ñu ci sonu lool ñom toll nañ ci fan wéri blessé yi ci ñom ñent ñi nga xamni ay blessé grave lañ leen di tuddé ab car ñega ñay la bu

ami ngoog ba tey ci xibaar yi wax lu jëm uh, ci rek coowal Pape du Seck ba nga xam ni teg nañ ko loxo gannaaw nag ba mu dawee woon rëcc uh, ci hôpital Aristide Le Dantec uh, gannaaw fukki fan ak juróom ci gannaaw moom Pape Mamadou Seck bañ ko tegee loxo am na beneen ñetteelu nit ba nga xam ni moom it teg nañ ko loxo maanaam ka xam ni moom moo ko hébergé woon foofee ci Daaru Karim ca douane bu Mbàkke moom mee nag tey ji teg nañ ko loxo moom itam hébergé ba lañ koy toppee tey ji moo di rek Euh, dañu koy toppee wàllu complicité ak fat ka nga xam ni yoon da koy wër euh, loole lañ ñuy toppee waaye Sile nga xam ni euh, moom lañ teg loxo ci ñu jàpp nii wala sax ñu gis ñi moom moo hébergé woon moom Pape Mamadou Seck moom la Euh, ci Pape Mamadou Seck la ñuy desandi euh, kuréel gi nga xam ne moom moo euh, rek tuddi ASRED ASRED nag di kuréel gi nga xam ne tey ji moo jàppale ñoom détenu yi wala képp ku génn kasoo naka la ñuy def nag ba mun dugalaat ci société bi ko jiite di Ibrahima Sall ñoom nag ne nañ ña ngay ñaawlu tey ji noonu yi nga xam ne rek lañu rek walla sax ña ngay yëglu mi ngi ci lu jëm ci état de santé bu Pape Mamadou Seck moom Ibrahima Sall ma ngay fàttali ne nañu rek bàyyi xel nii moom Pape Mamadou sekk nag Euh, nag dafa il y donte des conditions de détention. Il y a te euh, conditions condition de détention de nga xam lañ koy des conditions sax Ibrahima Sall ma a xam conditions de itam Il rek wax nañ ko de ni Pape Mamadou Seck gannaaw bañ ko détention. ci pavillon spécial bu Aristide Le détention. ma nga ci ay conditions yu y a des conditions de Ibrahima Sall ak euh, téléphone bu de Aseret mi ngi wax ne regret bu rëy rëy la yëgee jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko Pape Mamadou Seck te mu rëccoon fële fukki fan ak juróom-ñeent jàpp fukki fan si weeru juillet 2024 mu rëccoon fële si pavillon ñuy wax ne jàpp nañ ko ba delloowaat ka mu ngi ci kaso bi jamono ji ak euh, wérgu yaramam ni mu sutante ñuy ñaan administration pénitentiaire rek daan yi nga xam ne décret 362 bu 4 mai 2001 daf ko teg mu ëmb réglement wu kaso ñu def ci yërmande bu rëy oyefal ko ko ndax euh, wérgu yaramam euh, demeewul noonu Euh, ñuy wax ne ASRED moom mënul rafet lu benn yoon daw bi nga xam ne Pape Mamadou Seck dawoon naka ndax daw boobu it indil na ay jafe-jafe yu rëy ñi nga xam ne ñoom ñooy ay codétenu mu nekk ak ñoom ci kaso par saa bu benn détenu dawee rek ay moromam lay indil ay jafe-jafe moo tax ASRED moom chaque jour dafay ñaawlu ay cas d'évasion di wax ne ñi ngi ñaan euh, autorité judiciaire yi vraiment ñu def benn diligence rapide ci ay mbiram ñu xam ne dafa feebar mais également ñu respecter article 11 bu déclaration universelle des droits de lii di wax ne nit ki suñ la jàppee tant que jugé wuñu la ba dóor si table ji ne def nga rek kenn mënul wax ne coupable nga kon war nañu bàyyi xel article boobu nga xam ne moom mooy le premier document juridique ci wàllu xeex ak ak yelleefu doomu aadama. ba tey ci Pape Mamadou Seck la ñu dese nii ak noonu yi nga xam lañ yi moo xam ci site yi wala sax yenn ci ay télé tey ji nag CORED di ko ñaawlu CORED di rek kuréel nga xam ne mu ëmb eh, ñii di waaye taskatu xibaar yi lu jëm ci wàllu éthique ak diw ontologie ak ko ji di Mamadou Thior moom nak euh, ci ab communiquer le sel ni euh, non la nga xamne ne la image am te ken nëbbul kanam ga rafetlu wuñu ko te lu ni mel da fay li ñu tuddee intégrité physique am wala sax li di atteinte grave à la dignité euh, ci mom pap Mamadou Seck Corée nak diko ñaawlo ci noonu la nga xam la rek këru tas taskatu xabar yi def ci rek bobé information jëm ci ki di pap Mamadou Seck ak nataalam programme ba nga xam ni war na fu ne euh, fii ci réew meeg euh, ci biti réew. Aminga gannaaw lu ñu wax lu jëm ci wàllu waajtaay élection législative yi ñu jëm ñu fàttali ne ci dimanche gi lay doon ah, tey ji nag ay acteur culturels ñoom it dañoo jug ah, di rek woote jàmm ah, ci rek plateforme bu ñu tuddee Sénégal suñu yittee ñoom nag ñi ngi doon jënd ak taskatu xibaar yi ndikki démb ñu ngi fàttali nag waaye politique yi ne rek Sénégal tey ji ñoom moomuñu ko te askanu Sénégal am nañu droit nag wane wala sax fësal la nga xam ne moom la ñu nam amal foofee ci assemblée nationale

ak lu wuutey mën a bari waaye démocratie boo xam ni ndoorteem ak jeexitalam lépp jàmm la fii ñuy wax ak yéen nii fii ñu jano taskati xibaar yi nii suñu yeneen naataangoo suñu yeneen mbokk sénégalais ñu ngi dox di wër réew mi di daagan baatu askan bi ci li jëm ci élection législative yi waaye ñun ñi nga xam ni comme senegale bu nekk ci ñun ni mu bëggee jàmm ni ko jàmm soxalee jàmm noonu la ñu ba tax na li ñu njëkk a def mooy ñaawlu violence bi nga xam ne moom lañu ñu seetlu ci campagne bi lu jiitu campagne bi ak bi campagne bi dooree ak léegi violence ci wax yi violence ci jëf yi violence bii nag ñu sañ koo ñaawlu amul benn explication buñ fi mën a joxe bu koy daganal amul benn justification buñ fi mën a teg bu war a mën a wax ni liy jaadu na violence ci biir réew mënut a jaadu tey mënut a jaadu ëllëg bu ñu fàttali ne sénégalais yi nag ñooy fal ñooy folli baatu sénégalais yi doy na ci tàggali ñépp ñi nga xam ñi ngi daagan baatu askan bi du violence mooy tax falu du violence mooy tax a folli te leer nañu ni fii ci Sénégal dara lu baax dara lu rafet dara lu jag mënu fee am lu dul mu amee si jàmm Sénégal dëkku jàmm la loolu moo waral sos bi ñuy sos Sénégal suñu yitte Sénégal suñu yitte mu nekk jotaay boo xamante ni day lëkkale sénégalais yi ñu nekk ci biim réew ak ñu nekk bitim réew ñu nekk ci biir réew mi ak lu ñu mënti yëngu moo xam commerçant la moo xam éleveur la moo xam baana baana la

ñu wax lu jëm uh, ci kàddu Birahim Seck bu forum civil moom nag uh, mu ngi yëkkatee kàddu jëmale ko ci Yewwi Askan Wi nee na nag uh, volonté ba nga xam ne Yewwi Askan Wi am na ko ngir nag samp ab wala sax wacce ab loi ba nga xam ne dafay rek dàq lépp luy rek mën a nasaxal candidature wala sax fexe rek ba indi leneen la nga xam ni dafay dàq lii di impunité rawatina nag ñi nga xam ni tey ji tegoon nañ leen ñu postuler ci yenn leen ci ay liste te ñu mujjee leen ca dàq loolee dafay nekk nag euh, ab euh, mbir ma nga xam ni euh, bu ñu ko may wël dina indi rek pëccëxoo ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci moom Birahim Seck bu forum civil ci rek page Facebook am la xamle lu ni mel di wax ne nag Yewwi asken Wi war na xoolaat doxalinam rawatina ci yenn ci ay kàddu yi nga xam ni itamit maa ngi koy yëkkati gannaaw si loolu ñu wax ba tey ci wàllu élection yi ba tey la ñuy deseen yi mi ngi wax gannaaw mu dese juróom fan Fancote ngir nak ñu amel yi yile élection ba tey nag dafa mel ni ñu fichier électoral bu bees lu ni mel ko xamlé modi di Aljuma Sow bi yow kan wi am nak ma ngay artu di wax ni ah, tay ji mu ngi wo ah, Sénat Sénat di commission bi gàlloog wàllu organisation élection néna nak nag na jéem rek tek ah, lii di fichier bu bees ngir nak ñu mëna am élection yu mucc ayib donté né sax fichier bu fi nek moy bu ñu amalon ak élection locale yi fi amoon té lu ni mel dafa bëri lool lañ ca nemmeeku ci ay rëq-rëq mu aljuma soom moo xamle lu ni mel euh, di woo euh, tey ji Sénat ngir nag mu xoolaat responsabilité am yépp yi nga xam ni mu gàlloo ci loosam euh, ci les situations dernier virage lañu ñu nekk ci bile campagne gëna fukki fan ak juróom ci campagne euh, ci législative yi lan lañ mëna japp euh, ci cadre euh, ñi di waay politiciens yi suñu naw lii Aïssatou Ndiaye demoon na seeti askan wi lan lañ japp nak ci campagne électorale bi ñu tewlu reportage. dégg naa ci ay discours yo xamni jaral na ma. mais gis na ci dégg na ci lo xamni ne tam góobu ko waaw mais dal man yeewu yeewi askan li ñuy wax mun naa kaa dégg. doy nañ ma trop moom man la man moom lu may wax quoi bëriwul quoi ku nekk bu la yàlla wërsëgalee nga yor réew mi quoi na nga def la sa devoir quoi li nga diggee na nga ko def parce fii góor yàlla boo fi gis joob la xam dem liggéey teral ay doomam wala boog moo fi am quoi mais gars yi bu ñëwee fii bëgg a jël suñu xaalis lekk ko moom ñoom ak seen njaboot fii dëkk bu tàkkee ñu daw dem seen yoon baa fii wala boog nu muy demee. barki yàlla man Sonko moom convaincre na ma moom. Ah, Sonko quoi waaw. mais lu mu wax na ko jëfe quoi loolu la ñu wax na ko jëfe quoi ndax loo gis quoi da nga koy jëfe après même kuy sang néew sax dañ koy sang après tamit dañu wuyu suñu borom lu nga waxoon yëpp day feeñ. waaw mais xam nga tey jii le la mooy discours yi gars yi def yëpp man am na ci yoo xam ne ànd naa ci mais tamit am na ci yoo xam ne nii ànduma ci parce que dañ ne. être fort c'est mieux mais des fois tamit le geste fort c'est décédé parce que li ma gis nii man dëgg la ànduma président de la république à 100 pour cent mais ñi ma gis opposant yi ma seen ñuy diirante kii mbagg dàllam sax moo leen dàq yore réew bi waaw ndax tey li ma gis nii daal man xaw ma xaw ma daal mm, demul kër waaw parce que man bu ma sañoon dëgg la ñu xool beneen solution ko waa soit ñu jéem a xool capitaine du Dieye ñu jëm ko ci dugal ndaxte moom daal laa fi gis koo xam ne nii moom mën na convaincre gars yi ci lu ñu lu ñu jëmale kanam daal jamono ji voilà. ñëw ci point Covid bi maanaam mbas meeg tolluwaay bi fii ci réew ba Sénégal euh, tey ji ci talaata ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru suleel euh, ci 733 tests yi nga xam def nañ ko fanweer ya ñoo ci amee mbas mili euh, bokk na ci ñoom ñeent ñu ngi ko jëlee bitim réew am na ñeent fukk ak ñetti patient yi nga xam ni bañ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom amul kenn ku ca ñàkk ba kanam amul kenn tamit ku ca loof ma tey ji lañ mën jàpp moo dina ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróomi patient ñoom ñoo nekk ci loxo way docteur yi mi ngoog mbokk yi xarit yi bokk na ci li fi gënoon fës ci xibaar yi fii ci Lougaré TV di lañ jaajëfal bu baax ci teewlu bi di lañ dox rendez-vous très prochainement jaa ngeen jëf